général Abba foo dëkk. Sébi Kotaan. naka waa Sébi. waaw ñu ngi ci jàmm bu baax lépp jàmm waaw lépp jàmm waa Sébi Kotaan lu ñu xëyee tey booy woon sànq Sébi Kotaan la waaw waaw dañuy toll ci liggéey rek. dañu toll ci liggéey. waaw waaw ndaw Sébi Kotaan yëpp a ngi liggéey. waaw ñu ngi liggéey waaw. Ah, hip hop ngay def wala. waaw hip hop laay def. Ah. sa t-shirt bi lu ci bind nii. waaw dama def benn single tuddee ko numéro 10. numéro 10 mu ànd ak slogan ku amul pain jarul ngay laaj beurre. slogan. ku amul pain. jarul ngay laaj beurre. waaw si mais mën nga laaj defar ci beurre. waaw mën nga laaj beurre day seey waaw day dugg ci beñe mais beurre day beñe day am beurre bu nekkee ci pain bi du seey quoi loolu foofu lay amee solo ci biir beñe bi boy waaw mais ngay laaj beurre loolu wax la de. Ah. wolof laa la laaj wolof nga waaw samedi prochain ñu samedi incha allah bu ñu ñëwee ñu leeral ko. mesdames messieurs messieurs très chers téléspectateurs merci pour la fidélité rendez-vous ce soir en compagnie bien sûr euh, de Soumboulou sa bande ce sera bien sûr euh, dans Wiri Wiri ce soir euh, les exclusivités ce sera ce soir ici même au Grand Théâtre c'est pourquoi nous avions déplacé Weekend Start ça a été un plaisir pour moi de vous servir rendez-vous ce soir incha allah à toutes et à tous joyeux anniversaire. Mbaye Dieye fay kër ga maa ngi ñëw añ fa tuuti ci li nga xam ne moom la ki nga xam ne moom la maam Ndiaye togg Youssou Ndour maa ngi ñëw kër ga léegi ci ay Aïda bali defar ma daal ci ñëw salut à toutes et à tous ciao bon week-end à ce soir